kon kii moo gën a tabe kii waaw su ko defee kon tabe jikko la joo xam ne dafay daw ci dereti nit ki lu ma am lum tuuti tuuti rek danaa bëgg ñu ma ko bokkat loolu mooy tabe tabe nag danañ koy def ci alal cash bi nga yore donte nga xam ne foofu la ko nit ñi gën a xame waaye danañ koy def ci bépp moomeef boo moom ci sa ñam wi nga xam ne doo lekk mukk lu dul nga bokk ay nit moo xam nit ñooñu dañuy nekk ay jàmbur wala ay dëkkandoor wala ñu manti doon rek yow daal foo tollu da nga fexe ba di leen lexal moo xam lu ñu togg bam ñor la nga bokk ko ñoom walla ngay jël liñ mën a togg nga di leen ko jël di leen ko jox di ko di bokk ak ñoom la nga xam ne moom la la yàlla xéwal loole ci tabe lañ koy boole danañ koy xamee it ci colaay li ngay sol nga di ci summi di jox ci nit ñi nga xam ne dañ ko aajowoo loolu ci tabe lañ ko tuddee waaye su fekkee ne da nga ne du ma summi joxe mukk féeg amuma lu doy kon yow doo mos a summi joxe ndax doo mos a am lu doy nit du doylu waaw soo soo soo amee ñetti mbubb ne man dama rafle nga dem ba am fukki mbubbi da ngay continuer na man man dama rafle waaye su fekkoon ne da nga amee jikkooy tabe ca jamono jooja sa ñetti mbubb yi man ngaa jël benn bi joxe loolu mooy tabe tabe bu ko borom di def nit ñi dañuy foo ne kii dafa dof loolu la ñuy foog waaw waaye fekk jikko la ju nekk ci moom joo xam ne yow la yéem waaye moom mi nga xam ne ci moom la ne moom yéemut ko kon tabe mbir mu am solo la waaye fiñ ko gën a soxla ci ramadaan la alquranul karim dafa wax ci benn aaya ne innama almuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum waxaat ci beneen aaya ne wa taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala al ala al ithmi wal udwan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci doxalinam jàngal nañu lan mooy tabe lan mooy dimbalante lan mooy bëggante bi mu jógee Makka eh, gàddaay dem Madinatu Munawwara saxaabaam yi topp ko di ay muhaajiroon mooy ay immigrants ñëw ma madinatul war fekk fa ay saxaabaam ñoo xam ne ñooy ansaar ñooy ñooy helpas yi ñële ñu nga baxi ci seen fa ñu jógee ñu ngi fa baxi seen business ya ñu ngi fa bàyyi seen alal ñu ngi fa bàyyi seen jabar ñu ngi fa bàyyi seen doom ñu ngi fa bàyyi lu bëri ci seen eh, eh, eh, alal yi nga xam ne mënuñ koo indi kon ñii soxla nañu ku tabe jëm ci ñoom soxla nañu ku rafetal jëm ci ñoom ku leen dimbale waaw parce que tabe mooy euh, mooy bunt bi ëpp bi gën a am solo ci bunti dimbalante yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka la def dafa jëfandikoo ayaab innama almuminuuna ixwa jëfandikoo ayaab wa taawanu ala albirri wa taqwa te mooy jullit jullitay mbokkam waxaat ne na dimbalante ci lépp lu baax ak ragal yàlla lépp lu baax loo xam ne daf lañ jege daf lay jegeñ loo yàlla te bu leen dimbalante ci lépp lu bon loo xam ne daf lay soriloo yàlla bu leen ko def yonent bi saa sallam ci la sukkandiku woo muhaajiroon woo ansaar ne leen dama bëgg fas kóllëre seen diggante nu ma koy fasee mooy dama leen bugg bokkale dama leen bugg a bokkale diw sàngam diwoy sa mbokk diw sàngam diwoy sa mbokk diw sàngam diwoy sa mbokk te yonent bi sallallahu alayhi ba muy wax loola diwoy sa mbokk li baat bi namm loola la ci namm moo di ne waxut rek mbokk ak deret su fekkoon mbokk ak deret la du leen bokkale ndax bokkuñ ci deret waaye mbokk gi am solo mooy bokk ci fu ñu jëm mooy bokk ci eh, principles mooy bokk ci bokk aim ak objectives bokk lu ñu gëm bokk fu ñu gëm loolu mooy mbokk ak dëgg mu ne nag comme que yéen a bokk benn yàlla yéen a bokk benn yonent yéen a bokk benn bukk kon li leen boole moo ëpp li leen teqale kon dama leen di mbokkale diw diway mbokkam diw diway mbokkam ba mbir ma daj eh, eh, pour nag ndax kenn ku ci ne mën a dimbale ki nga xam ne moom lañ la mbokkale nga mun koo dimbale waaw ci loolu ci la eh, kenn ci saxaaba yi wax ki nga xam ne moom lañ ko mbokkale ne ko diw mu ne naam mu ne ko maa ngi yor lu ëpp benn jabar soo bëggee mën naa fase kenn ci samay soxna su defee edda ba mu jeex nga tàkk waaw xam nga ne tabe paasewul foofu ke ne ko eh, sama alal eh, def naa ko ci digg genn gi nga jël genn gi ma jël waaw mbokka ma ne ko eh, li nga yor yal na la ko yàlla barkeelal waaye wan ma yoonu marché bi naka lañuy def ba ma mën a yaxantu su ko defee man ma yaxantul suma bopp ma nekk di jaay di jënd noonu lañ ko won yoonu marché bi mu dem ca marché ba di dem di ñëw di dem di ñëw ba xam secret marché bi naka lay def ba man di jaay di jënd mu commencé di jaay di jënd ba mu mujj nekk eh, borom alal bu mag ci madinatu munawar am soxnaam yonent bi sallallahu alayhi wa moom gis ne am na soxna mu ne ko na nga céetale waaw céetaleel su ko defee ñoom saxaaba yi melawu rafet woowu moom lañ ñu wonoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafet woowu lañu ñu won moo xam ci biir weeru koor la lu dul biir weeru koor yow bon jullit bi war nga dimbale sa mbokkam jullit waaye loolu du suma police loolu du koy du koy baaxoo di wax yow nit ki na nga dimbale sa mbokkam nit loolu mooy dëgg balaa ñoo wax jullit nite moo njëkk na nga dimbale sa mbokkam nit waaw soo paree nag leneen li la boole ak jullit nga dimbale ko ca buntu booba waaw waaye ki ngay njëkk a dimbale mooy doomu aadama su ko defee kon weeri koor lu bari daf ciy xew li ci gën a siiw ci liy xew moo dina bu weeru koor di bëgg jot benn benn yi nga xam ne yàlla may na leen alal te yéwenuñu ci seen alal ji tabewuñu ci seen alal ji ñoom li ñu bëgg mooy namp dereti nit ñu ñàkk ñi nañuy def mooy dañuy denc marchandise yi mooy dañ koy xoot moom lañuy wax ixtikaar dañuy denc marchandise mi ba nit ñi ne siiw pour jot ko waaw dem nañoo dema dem ba dara amatut waaw su fekkee maalo la ñu naan maalo de amatut ci dëkk bi su fekkee sukkur la ñu naan amatut su fekkee tamaate la ñu ne amatut ba nga xam ne loo luñ la ko jaayee nga jënd ko ñu door koo génnee nag yokk ko waaw te yow ba nga koy jënd la nga ko jëndee woon dara yokku ci yaa ngi ko doon jaay sax nag waaye nga bëgg profit bu rëy tax nga denc ko ba weeri koor wi jot ba nit ñi soxla ko nga door ko génnee su fekkee yaa ngi ko doon jaayee fukk nga jaayee ko fukk ak ñett te forcé nit ñi jënd ko suñ koy sàcc ak luñ fuñ ko mënti jëlee forcé ñu jënd ko loolu mu ngi bokk ci jikko yi nga xam ne séntu ñu ne nit war na koo amee walla jëflante gu nit waru ko jëflante ak moromam nitam waxuma laa nag jullit ak moroomam jullitam te loolu dafay xew day xew li jaadu woon moo doon su weeri koor jotee képp koo xam ne yaa ngi def business waxuñ la ne nga daane sa bopp déedéet business bu ne li ñu li ñu séntu mooy da ciy jëlee dara da nga fay jëlee profit waaw kenn du fecc yàlla naa de comme niñ ko baaxoo di wax eh, euh, bon waxuñ la nga daane sa bopp waaye su fekkee ne ci biti weeri koor wi bi ngay jaay mbir mi ñetti dala dalasi nga ko daan jaaye ñaar ñi euh, yaa ko moom benn bi mooy sa profit su fekkee ne ñaari ñooy sa capital waaye benn bi mooy sa profit li ñu doon séntu mooy su fekkee ne yërëm nga sa mbokki jullit ñi su fekkee ne bëgg nga leen a dimbale bi nga xam ne moom la la suma borom subhanahu wa taala sant li ma foogoon mooy benn dalasi bi nga xam ne moo doon doon sa profit at least nga wàññi ko soo wàññiwu do soo wàññiwu dalasi bi yëpp sax waaw ngir ne soo wàññee dalasi bi yëpp xëy na di nga daanu parce que capital bi rek nga am te yaa ngi war a eh, yaa ngi yaa ko transporté yaa yaay fay bill yaay def nangamati nangam waaye nga wàññi bon at least nga wàññi fa 25 butut wala nga wàññi fa boog tat 50 butut su ko defee jullit ñi xam ne jullit jullitay mbokkam ñu xam ne yëg nga leen ñu xam ne yaa ngi leen di dimbale